dëgër këcc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 génne comme ñun am na ñu ñoo xamante ni loo gis rek am na ñu ciy cité quoi comme man bokkoon naa ci ñi nga xam ne ci kaso bi sama tur bokkoon na ci lu muy ëpp lu muy dem ci chef de cour parce que man insiste dama koy bañ si biir kaso bi laa ko dax ñi ma nekkoon si kaso bi ñëpp kii xam na si ma ko dund affaire bi amee tamit parce que man bokk naa si njëkk a taxaw ne lii du yoon ñu révolté wu fëgg kaso bi yëngal porte affaire yooyu noonu ñenn ñi daje seen chambre affaire yooyu ñu am ñu di miite ñun ñu jël ñu yóbbu ñu selil euh, après ñu toog waxtaan ak ñun gar yi dalal ñu waxtaan ak ñun nee na nag ñoom tamit vraiment ay jàmbaar lañu quoi te ay patriote lañu. billahi wallahi gar yi ku la gën a bëgg ñoom ñëpp ku la kenn bañ yow ñu wax la ñu ne la ñun dañu lii neexuñu mais xamuñu nan ñu duggee ci kaso bi yu bëri yu nekkoon ci biir kaso bi yu métti yoo xam ne prisonniers yi nga fi am na nu mu demee woon parce que gënoon na métti nii mais depuis ngeen ñëw fi ba léegi changement am na fi parce que gis nañu ne léegi garde yi ñu ngi jox lu ñu moom suñu ak ak yelleef bi ñu am ñu ñu koy jox dund gi ni mu doon demee demeetu ni parce que ay lekk yu bon nga fi doon lekk léegi lekk yi xaw na xaw na normal mais ah, ndox bi tamit problème la ci kaso parce que da ngay toog ñun magal fii toog nañu magal 15 jours toog nañu ko toq ndox dugul ci kaso bi toq ko gis si biir kaso bi pour nga naan ndox nii rek problème la sangu soo ko bëggee da nga dem biteelu kiran ngay jënd sangoo ko wala doo sangu te seen boutique lañ yor ci biir lu ñuy jaay si biir si biir kaso bi amoo droit jëndee ko si biti dañu lay force jën loola ko fii sa waay fii lu nekk fi am fii billaahi yàlla xam na ko te loolu noonu dafa yi yi xew fii nii loolu loolu ñun ñun li may doon wax kii rek la waxtaan lu bëri dama ko wax ne ko ma ne ko ñun ñun fii waruñu foon a dugg quoi parce que ñun duñu waruñu xoon a xam li nekk si biir kaso parce que ñun ni ñu mel soo ñu dugalee si biir kaso bu ñu xam li fi nekk suñu génnee su Macky Sall tegaatee acte yi muy teg nii day gën a ci moom parce que ñun pare nañu pour pour fii ñu taxaw ñu ñu pare waat pare nañ si dara lu ñu war a wax duñu ñu ko wax bu jëf jotee nañu jëf waaw ñu dinañu Sénégalais yëpp nag surtout patriotes yi ak Pastef diaspora bi gis nañ ñu taxawoo gars yi si biir patriotes yi affaire na mais yow doo ko yëg parce que ñoom di sant waa Réfane nag baax a baax a baax ñi nga xam ne ñoo ma jël si Réfane lañ jógee ñëw fii jël si ma xam nga xam ne xam nga nit amul lu dul ay mbokam man aw lu dul Réfane Réfane nga ma dëkk gis naa seen taxawaay gis naa tamit waa Réfane yëpp ni ñu sonné ci sama sama ñi mën a ñëw ñu ngi ñëw ñu mënul ñëw ñu ngi yónnee ñu ne si Sénégal ak ñu ne si diaspora bi ñëpp ah di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp comme dañuy xaw a door a génne après incha allah a kii mën ngeen ma jël parce que moom démb lañu ko bàyyi man 100 pour 50 laa nekkoon. saa yi wax na li mu war a wax lépp. saa yi wax na lépp. bokk nga ci ñi ñu libéré démb. waaw dem nañ ma libéré. seen kàddu rek ngay daanaka Cheikh wax na li mu war a wax lépp. ndax ñun moom Sénégal fii nii manifestation sunu droit la fi ndax euh, loi bi moo ko may ñu doon xeex ngir réew mi di xeex ngir développement. ñu faam ñu jaañi doole indi ñu ci ñu toll ci juróom-ñaari weer ñu di ci kaso bi kaso bi da ngay xool man fi duggee ba léegi chaque jour lekk ak naan muy ndekki lu mu minimum 1000 francs di ko di ko ndekkee añ bi minimum 2000 chaque jour 3000 juróom-ñaari weer loolu boo ko compté ci xaalis bis bi ñaata la depuis boo boole boo ba léegi ci koo xamante ne nii bàyyi nga famille ginnaaw am nga jabar am nga njaboot nekk père de famille liggéeyoo xëyoo gontoo di jox sa bopp dépasse di joxe dépasse ci dikkaat fii ñu lay tàggate yàlla xam ne ne matelas boo xam ne mer gàddu la sept personnes six personnes di ko bokk yow da ngay tëdd laa la wax doo sax laal suuf matelas bi doo ko sax laal metti na yàlla xam ne ko fii li na ci yu moom bu ma ciy wax sama xol day jóg ndax la ma fa dund ko quoi nekk innocent encore koo xam ne xamul kaso nekkul def defkat ñu fab ko jaay ko doole yóbbu ko kaso boole ko ak ñoo xamante ne nii dañuy ndamoo ay mandat de dépôt am naa dix mandat de dépôt am naa neuf mandat de dépôt nga wax ak moom tuuti mu man kiri moo fi indi nga nga demaat ci keneen wax ak moom tuuti mu ne man dama sàcc 10 millions ñëw fii comprendre nga man bokkuma ak yow man damay joob ci biti te moom lim lim naan moom lay joob mooy day dem sàcc xaalis bi jaamul ñëw ci kaso yow nga xeex ngir sa réew ba dugg ci kaso boo gëmul sa bopp man ngaa sax mel ni ñoom mais ñun dafa am lu gëm man mi di wax ak yow nii commerçant la bisu ci yàlla amul dara loo xamante ne nii soxla naa ko jamono ji ma toll nii biiraa ma ne ci kaso bi ah du ma ne wu ma dara de waaye lépp loo xamante ne nii namoon naa ko rek dugalal loolu ma ko à grâce nag famille famille bi quoi lu ci mel ne ñoom Bamba Xaadim Gueye ak Xaadim Ngom ak ñoom Ismaïla Dia ak euh, waa Pastef bi encore seetaanuñ benn yoon donte ne ñun ñooy taxaw seen bopp ci biir kaso mais ñoom diiraa bi ñu fi nekkee chaque jour lekk ak naan lu ne la ñuy dugalal. bilaay wallaay te tegul leen encore. mais est ce que mën nga ñëwaat ci sa arrestation fan lañ waaw man nag sama arrestation ñoo ngi ma jàppee euh, Grand Dakar bi ma jàppee ñoo ma jàpp 31 juillet jour bi mandat de dépôt Ousmane Sonko ñoo ngi ma jàpp à 11h Cheikh Fall mi ñoo àndoon ñoo ngi ma jàpp 11h man bi ñu ma jàppee moom dafa rëcc waaw moom jàppuñu ko bi ñu ma jàppee 11h midi lan mu commencé di ma torturer. di ma dóor ba 18 heures quatre euh, agents de police ñoo ma jàpp ñenn ñu yor seen i kagul yorun dara lu ay yat ak ay liif des fois sax yat bu demee nii ay la lay dóor dañ lay dóor ba fi ñuy binde PV muy taabal bi ordinateur yi ci ron taabal yi la ñuy dugg yàlla xam na ne dañuy wiiri ci ron taabal yi la lay fekk dóor la paat nga génne waat ci beneen ko te bi loolu lépp dundoon ko ci nag mais projet bi jaral nañu ko parce que ñu li ñu doon xeex ba dugg ci kaso xam ne tey lañ ko gën a donte ne dund nañ ci ay coono dund nañ ci ay jafe-jafe mais maanaam ñun li ñuy dugal kaso mbégte la ci ñun ndax man bu ma duggee kaso ngir xeex ba euh, xeex ngir réew mi xeex ngir changement changement boo xamante ne nii amaana buy changé sax man fekk ni jëm naa màgg wala pour sama njaboot ñoo koy jariñoo mais dama doon xeex ngir réew mi changé di xeex ngir développement réew mi comprendre ñu jaay ñi doole kaso bi metti na trop. kaso bi yàlla xam ne metti na trop ndax paquetage bi problème ndox danga koy am doo sangu sa yaram di xasan boole ci seddaay bi nii nii boo génnee ci biti gi buntu néeg bi sa yaram bi day mel ni lu am ay picc ndax seddaay bi mais boo duggee ban ban ne tëdd jot na ba ban raase ba ngeen tëdd même pas deux minutes sa yaram bi mel dañ koo ndax ñàkk metti na trop mais nag ñun projet bii nga xamante ni moom lañ xeex ba dugg ci kaso wallaahi jaral lañu ko te tey jii ba amaatoon amul dara loo xamante ne nii ñoo ngi ko ciy rëccu te itam jubun san drapeau ci biir de joytuwun benn yoon billaay wallaay lép loo xamante ni dund nañ ko fa itam danoo yakaar projet bi moo ko laaj ndax Ousmane Sonko depuis au début waxoon na ne projet bi li ci gën a euh, yomb mooy ñàkk sa liggéey wala dem ci kaso te li mu wax am nañ ci preuve ndax gis nañ depuis 2021 ba léegi ay bakkan yu root amaana man mii yàlla sa borom da koo neex boolewuma ci ñooñu nekkoon 2021 mënoon na maa bokk ci ñuy lim ay moor yàlla dogal ñu jàpp ma 2023 muy 31 juillet ñu libéré ma le 15 février 2024 loolu nag sant yàlla la parce que am na ci ñoo xam ne maa leen tane ñenn ñi nañ ci ay laago mënatuñ dellu ci seen liggéey ñenn ñi dugg nañ ci biir bàmmeel bay laa yow mi di dootuñ wàcc kaw suuf man maa ngi nii tey bi bi ñu ma tëjee xam naa ne mu yàgg mu yeex damay génnaat incha allah te bu ma génnee nekkaat ci samay activité tey biñ lay génnee dañ la démb dañ la woo rek ne la jëlal sa saak da waaw man nag woo ma enquête ña ma euh, kii mandat de dépôt le 3 août woo nañ ma enquête le 25 janvier bii ñu génn nii dem lan ma woo grève na ma jëlal say bagage libéré nan la mais LP la la may yaag siis bi tàggoogu leen à tout moment mën na laa waxaat indi la ci kaso. vidéo bi bu ko gisee nii mën naa ci delluwaat kaso mais bu ma delluwaatee kaso itam xam ne defuma lu ñaaw waxuma lu ñaaw xeexuma ngir sama intérêt damaa xeex ngir intérêt jaral na ma ko. jërëjëf jërë ngeen jëf kontaan naa di sant nag encore waa Réfane waa Réfane amul seen fay yàlla xam ne Réfane Réfane bari na arrestation trop ci manifestation yi actuellement nii libéré nañ ci quatre cinq des na ci biir ci biir waa Réfane ñoo xam ne ñoom la ñuy xaaru instant bii nii nii nii nii. ñooñu ndax dégg nga dégg jàpp nga ni ñoom dinañ leen bàyyi génn. waaw parce que ñi bu fekkee Fallou ak Jibi Thiaw ñooy rentré euh, kii. vendredi bi passé lan leen lan leen arrêté ñoo ngi leen joxoon rendez-vous bi ñu leen di mandat de dépôt le 26 le 26 bii nii nii nii pour tribunal quoi enquête xam naa nag yàlla mën naa dogal ñu libéré leen tey jii nii mais daal lépp sant yàlla sant yàlla bu baax a baax di gërëm gars yi nga xam ne jàppale nañu ci kaso bi ñëpp muy famille bi di sama jabar di sama mag ay ñoom Mour Ngom ñoom Xaarim Xaarim Gueye Ismaïla ja ñoom Demba Dia ñoom Thierno Gueye gars yi ñëpp daal képp koo xamante ni surtout waa marché ti leen seen fay taxaw nañ ci trop sama kaso bi fii muy bisu Thiès jaaykati or yi yàlla xam ne ñëpp ma ci taxaw kontaan naa ci ñoom ñëpp sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp jërë ngeen dugal ma si maag cinq personnes tëj ñu si oto bi seen oto 4x4 bu noir bi tëj ma si biir oto ba pare génne pompe pompe ma si bët man def naa 40 minutes si pompe pompe boobu def naa 40 minutes yoo xam ne mënu ma mënu ma xool sama bët mënu ma xool barki ko karim 40 minutes jëlee nañu ma jëlee nañu ma jëlee nañu ma yoof en face S2 man biir Ouest Foire bu dugal ma centre Mori ma may door a mën a xepp sama bët ko xol ñi ma nekkal ku ci amoon feebar wala man ma am feebar foofu na su bàkkande yam parce que loolu loolu loolu loolu bëgg a ray nit la ñun loolu la ñu gëm nga dugaat ci biir centre Mori ñu jàpp la torturer la man personnellement dañu ma génne ber ma téye ma torturer ma dóor ma ay dóor yu métti te toog naa 15 jours yoo xam ne sama sama sama pour ma lekk lekk bu ñu ma indi suma sama mag Ibrahima Ndiaye bi ma koy sant bu baax lekk bu ma indi dama indi hamburger indi ma shawarma indi ma indi ma indi ma euh, kii banana mais man banana bi rek laay mën a lekk parce que li ci des sama koy may parce que mënu ma ko lekk 15 jours laa la wax nag ñu téye ñu ci violon boo xam ne foofu maanaam xaj sax waroo ko fa dugal violon yi nga xamante ne parce que nii lay toll ñu ñu dugal si 9 personnes 9 person ngeen bëgg di tet foofu dugal ñu leen fi dara bidon bu ñu dugal bidon saw 10 litres lañ leen si biir ngeen di saw bu ñu tijjee violon bi bu ñu ko tijjee suba 8 heures deme 8 heures la ñu koy tijjiwaat bu ñu ko tëjee tey suba 8 heures lañ lay tijji nga dugg si toilette yi deme 8 heures la ñu koy tijjiwaat muy lu muy lu metti ci Sénégal loo xam ne loolu rek ñun jar na ñun teg suñu bakkan pour réew mi lii jóge fi te te lii du yoon lii du yoon ñun ay nit lañu ñun ñun bëgg suñu réew rek moo ñu li ñun sàccuñu par la suite la dañ la yóbbu ci procureur central ñu def retour de parquet une semaine une semaine 14 août la ñu ñu la ñu la ma def mandat de dépôt Mamadou Seck moo yor sama dossier mu ne dafa feebar. sis Babacar Diop doyen di sis Babacar Diop moo ma def mandat de dépôt te bi mooy mandat de dépôt daf ma wax ne ma xamal carrément ne ma yéen ñi ku leen xool xam ne du ngeen ay malfaiteur mais lii mënuñu si dara imaginez si gis bu taxaw ak yow di la wax loolu lii mënuñu si dara. parce que décision bi ci kaw la jógee gis taxaw ak yow di la wax loolu ñu naan réew mi yoon a ngi fi ñun ñun ñu ko dund ñoo xam ne yoon amu fi man Babacar Diop moo ma wax loolu man man parce que moo ma def mandat de parce que man Mamadou Seck moo yoroon sama dossier mu ma lii ku ko gis xam ne ku leen gis xam ne doo leen ay malfaiteur mais lii man daal en tout cas jàppewuñu ma dara bëgg Sonko nag dëll la mais man jàppewuñu ma lu war a mën a tax sar si ñu teg su ñu teg sama kaw yëpp ñu teg ko. association de malfaiteurs trouble à l'ordre public euh, euh, manifestation non autorisée lépp lépp la boole chargé ko sama PV. cocktail molotov ma wax la ma wax la gën a reetaan loo xam su ma la waxee nga reetaan mooy man du ñu ma jàpp 31 euh, juillet lundi 31 juillet lañ ma jàpp hmm, lundi mardi man 31 juillet maa man ci maa bi mardi mardi mardi le premier commandant bi génn génn. ne man am na citerne bu ñu taaloon ci route S2 Yoff bi man mi ne si violon bi lëndi mardi man maa taal citerne boobu. lu gën a garaaw loolu. koo xam ne yaa ngi ko téye jël ay nit ñi nga xamante ne man ci biir violon laa leen xam ne ñu jël ma kole ma ak ñoom benn dossier ne man ak ñoom ñoo ànd bilaay walaay ñoo ñoo xaw benn nit laa sa xaw ma si kenn. ñëpp ñu boole ñu benn dossier collé ñu ko ne ñun ñoo ñun ñoo bokk def lii sëñ bi réew mi li fi nekk du dëgg du yoon tey la ñu taw a taxaw ñun ñun ñun jàpp nañu dugal ñu duñu jàpp ne combat bi lu toll ko si li ñu door parce que lii dafay jógee barke alxuraanu karim lu ñu koy na bakka nag lu ñun pare nañu pour joxe ko mais pare nañu pour ñu soppeeku xaaruñu xaaruñu ci dara nag soxlawuñu dara parce que ñu ngi suñu euh, bi ah, weer yi ñu fa def na ngeen doon dundee ak yan moment moo la gën a marqué ak sa yi ma gën a marqué moom nekk na nekk na 31 décembre bi Macky Sall def discours ak euh, samedi bi mu ne dañuy reporter élection yi parce que détenu yi si biir. yéen ñi si biti ñoo doon ëpp information ñun ñun li ñu am c'est son ans yàlla dimbali ñu ñu gisaat ku mel noonu mu ñëwaat parce que parce que ku mel ni Ousmane Sonko yombul mën nga toog 50 ans 60 ans di ko door di am di door am nit bu mel noonu soo ko amee yow da nga war a def sa lépp pour bañ a perte kooku. te comme yàlla def na ñun ci ay ndaw lañu mais fekke nañu loolu dañuy nangoo sacrifié wu muy lu ñu ci mënti fekk nag. su dee muy mu nekk mu nekk dee rek man man def naa def naa def naa def naa parce ñu ma jàpp 31 juillet parce que man Ousmane Sonko 31 juillet dañu ko mandat de pour deux heures 2 heures demi ñu jàpp. ma def ma def ay ay ay affaires yu métti nag yoo xam ne. ci lu jëm ci torture li gën a li nga xamante ni li ñu ko war di dénoncé muy torture yi nga xamante ni mooy moom torture yi ñu waa sëyi seen def man damay wax sax su ma gën a dama koy wax sëyi seen ak gendarmerie Foire ñooñu du ma leen baal looy xalaat rek looy xalaat loo rek man sama bopp laa wax du ma wax kenn teg nañ ko sama kaw man. loolu ban ñu ma jàppee. ci saa si parce que am na am na ñoom waa Sèye Sène am na benn pompe bu ñu yor bu ñu pompé woon Ousmane Sonko loolu man maa koy dëggal fii tey.